aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bokki taalibe yépp li dikk rek ci loo xam ne ay kàddu yu ndigal la yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndigal lii munu jox ci bis bu màgg bii nga xam ne mooy bisub xasida dafa bëgg mu gën a leer ci bokki taalibe yi ndax yéene ji ak xir gi xam na ko ci kenn ku ci ne te loolu lépp euh, ndigalal sëñ Tuubaa bu dikkee fa muy leen di toll rek moo ko waral waaye mu bëgg nag indi ci ay leeral yuy tax lépp gën a yéwén ndax Cheikh Abdou Khader Mbacke mu baax ma daan na wax ne ndigalal sëñ Tuubaa laajul tafrit laajul ifraat waruñ caa dolli dara waruñ caa itam woyofal lenn bis bi nag sëriñ bi dafa dafa dafa dafa taamul boppam wax ne ñi nga xam ne seenub liggéey dafa jëmoon ci xasida ci di ko durus ak di ko jàng njàngum yëkkati moo xam kuréel la wala njàngum rajas mu sell loolu la bëggoon ñooñu ñu tànn leen ñu daje taxawe bis bi waaye taalibe yi ni ñu koy déggee dafa mel ni moom dégg na mu mel ni àggale nañ ko foo xamante ne bëgg na fàttaliwaat ñëpp ñu xam ne nañu déggaat ndigal li te sàmmonteeg moom te xam ne barke bi ak njëriñ li ak tawféex yi nekk ci bis bi fu waay nekk dina la fa fekk waaye liggéey boo koy deflu da ngay seet ña ko war a def rek nga def loo leen ko ndax tolluwaayu tolluwaayu jamono tëdd na noo xamante ne ñii mu woo muy ëhlu xasida te loolu moo tax ba mu ma woowee di ma sant ndiggal li kam ma yebal ci moom ku ne xam na ko ci xasida ndax wax na ma ne sëñ xam Xamsatu Mbàkke mii de lu waay di def ci xasida moom nga koy jàppale loolu nag dafay loo xamante ne cër bu mu am ci biir toolub sëñ Tuubaa mboolem njabootu sëñ Tuubaa nangul ko ko di ko ñaanal taxawaay boobu gën a yàgg moom nag ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu nosu nañu ñooñu tamit soo ci dollee kuréelu xasida yi nga xam ne daara bu Tarqiyyah ci biir réew mi yëpp boo xoolee kuréelu xasida yi fi ne ak ñi nga xam ne dañoo bànqaasoo ci Hizbut Tarqiyyah def ay kuréel yoo xam ne ñu ngay liggéey seenub liggéey te di ko sellal soo leen boolee rek lim bi ñu soxla ci kuréel yu ko war a dundal ci jumaa jeeg lu ko wër lépp dina mat kon nag loolu nañu bàyyi ndigal loolu ñooñu mu mel ni euh, ab xare la boo xamante ne ñooñu buñ ca teewee teewaaleel nañ ca murit yëpp loolu nag la sëriñ bi bëgg ñëpp xam ko te xam ne kër sañ Tuubaa yi nekk ci biir réew mi bu fenn des yëg na ne ñëpp seen xel a ngi fi waaye foofe seen xolit mi ngi fi waaye foofee ñu ne nañ ko fa dundal te yam foofe di tàmbalee ndakaaru ba ci réew mi fu ci ne ba ci Ziguinchor ña fa nekk te am yi amoon yéenay ñëw te bokkut ak ñii ñu jot a wax nañu teewlu foofu def ko fa incha allahu njëriñ yi nga xam ne dina soqi ko ci bis bii ak teewlu gii ñu seq suñu digganteeg sëriñ bi la muy jur ñëpp koy bokk te kenn na du leen ci ëppale loolu buggoon nañu xam ko muy fii muy bitim bitim réew fu fi kër sëriñ Tuubaa nekk rek nañ ko doxalee noonu la ca toppaat nag mooy ñu bàyyi xel tolluwaay jamono ak li nga xam ne ay mesures barrières la loolu muy li ñu digle nañ ko sàmm te xam ne euh, kër docteur moom buñ nee euh, nañu takk masque nañu yor gel loolu dafay loo xam ne lu sa pësteef rëy ak lu sa tolluwaay euh, kawe it na nga bàyyi xel ne Cheikh mun Mountakha mu ngi takk masque kon nun nañ sàmmoon teg loolu loolu dana doy sëkk li ci des mooy bis bi li ci war sëriñ bi la mu jëfoon rek doyoon na lépp lu ca war la mu ca def doyoon na ca lam ñu jox loo xam ne dinañ mën a teral ñay jàng di ko yëkkati ak ñay durus waaye sëñ Hamsatu itam moom jëf na ci jëf joo xam ne soo ko booleeg nun dong yi nga xam ne bi ñu sëñ bi joxee ndigal mën nañu euh, nab nabee ba jëf ci loolee boo ko xoolee rek defar na lépp ci li nga xam ne moom la ñuy tëwoo kon loolu mooy ndigal li biir Touba itam waxuñu waa Touba ñu ñëw dajaloo ci penc mi ndax penc mu jël ci Touba rek sëriñ bi nee na nañ ko dundale foofu ñenee foofu it ñu yam foofu ci kilifteefu ña fa ne di njabootu sëñ Tuubaa goo xam ne ñoo ko sëriñ bi ñoo bokk bëgg ñoo ñoo sëriñ bi ñoo bokk yëg-yëg ñoo sëriñ bi ñoo bokk li ñuy sàmm ak di ko taxaw lii daal mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon ñëpp xam ko euh, te it xam ne lépp li ci ëpp njëriñ mooy teewlu gi rek ndax damaa mës a dégg Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu tedd mi wax ne alxuraan day day wax ne wu ñu tëj saa boo ko ñëwee bëgg ko ubbi daf la naan la yamasoo illal mutahharun ku laabul du ma laal mu ne nga nga nga dem daal di laab ñëw bëgg ko laal mu ne laay mosoo ila mu taxaroon nga xam ne kon laabu xol a tax muy wax nee na laabu xol nag bu xasee am dootu la wax loolu dafa la naan la fa iza qara'ta alqur'ana fasta'is billahi min asheytani rajim boo ne a'uzu billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim mbuutum alquran daal di ñëw loo bëgg rek fi boo ko fasee daadi koy am loolu it atte boobu moo am ci xasida yi dañoo war a laab ci xol dañoo war a teewlu dañoo war a ànd ak yar dañoo war a ànd teggin sëñ Moustapha moom sëñ Mahamadan dina ci jottali ay kàddu yoo xam ne nun taalibe yëpp bu ñu sàmmonteeg loolu li sëriñ bi bëgg ci noonu dina ko am ci noonu te loolu rek moo ñu tax a jóg àdduna ak alaxira